avertissement gan moom lañ arus, en rouge waaw waaw numéro 2 cinquante gan dong sa combat ba he hee Gane na ko waaw daan daan na 50 sa géew ba moom Gorel Camara waaw Djima daan na Abou Camara ndeysaan Djima numéro 2 daan na ko vite fait bien fait la décourage mbër c'est le sport waaw Djima daan na gis nga Pape Diouf étoile Ndom étoile Ndom na ko

taw na génn fils eh, de Pape Diouf laa ilaaha illallaah Étoile Ndom fils de Pape Diouf fils de Pape Diouf Étoile Ndom arbitre arbitre waaw waaw xale yaa ngay bërë bërë bu rëy waaye fils de Pape Diouf Étoile Ndom faqat mu rëpp wala waaw ñoo ngi bëre bëre bu rëy ndeysaan fils de Pape Diouf fu mu ne booy seet moo nekk si position bu baax moom fils de Pape Diouf waaw moo ngi koy faqat arbitre moo ngi koy faqat trois appuis jogaat na waaw waaw fils de Pape Diouf étoile ndoom jogaat nañu arbitre arbitre gis na Pape Diouf étoile ndoom ndeysaan seen combat ba métti na lu xew trois appuis ba tey loxo bang sa ngemb ba arbitre arbitre arbitre de Pape Diouf arbitre sifflé na lu xew waaw eh victoire de Papa Ndom sur fils de Pape Diouf temps moo jeex temps jeex na Papa Ndom Étoile Ndom am na victoire ci kaw fils de Pape Diouf diggante Mboose Géej ak 30 bu Koundam eh Mboose Géej 30 Mboose Géej dugal na ko Mboose Géej écrit Ocass moo nekk à droite 30 dox na ci koom 30 daw na jël ko 30 jël na Mboose Géej hee amul round d'observation Bosse Gueye 30 Bosse Gueye 30 waaw waaw ñaari mbër yaa ngay bëre ku Bosse Gueye 30 bu kundam ñoo xeex Bosse Gueye 30 ñoo ngay xeex daw nañ jàppante Bosse Gueye jàpp na oho 30 bu kundam na Bosse Gueye doole doxul jàmm waaw 30 bu kundam daan na ko combat ba amul une minute 39 secondes wala 40 secondes 30 bu kundam daan na Bosse Gueye vite fait bien fait waaw waaw c'est le sport di courage mooy Mbossé Gueye lambu la lambu noonu la Chat, onge onge ak lu munti xew fay dem chat day repli waaw waaw des fois mu dem gauche des fois mu dem droite onge caat hehe mbaa kaaw du am onge njaay chat ndaysan dajé nañu chat bu sita onge njaay xale ya seen combat ba métti na jeex na temps jeex na lu bi di wax victoire de eh, match nul match nul waaw waaw amul dara amul dañoo match nul ñoom ñaar caat bu sita Ongué Ndiaye match nul la waaw amul avertissement ndeysaan waaw waaw Ama 2 na benn avertissement arbitre arbitre arbitre latéral arbitre déplacement waaw waaw aca Ama 2 Petit Lion Ama 2 Petit Lion héhé la de Petit Lion Ama 2 Petit Lion Ama 2 Petit Lion Petit Lion Ama 2 Petit Lion Ama 2 Petit jël tànk ba Ama 2 jël na tànk Eh, jël na tànk Petit Lion Ama 2 Petit Lion Petit Lion Petit eh Petit Lion daan wow wow 2 waaw di ko tegal Petit Lion ko caxabal xatar bi ko ci Petit Lion amado na arbitre civil waat na combat ak Bébé Bébé trois avertissement ñoom ñaar ñëpp ku ne am na trois avertissement loolu arrangé wu leen ay xale ngeen bëri leen daw nañ jàppante hee Sine Sine jël na tànk ba Sine Sine Bébé Ñax Sine Sine Bébé Ñax jël ba rëy na Bébé Ñax daan na Sine laa ilaha illallah jël ba na Bébé ba daan na Sine Sine daa jël tànk ba mu dóor ko tànk suul bopp ba Bébé Ñax bu suba sor daan na Sine Sine jël ba rëy na waaw waaw c'est le agogo ki ah, nga xam ne mooy tampon am na benn avertissement Agogo tampon Agogo tampon hee hee daje nañu arbitre arbitre Agogo tampon taw nañ jàppante xeex nañu jàppante nañu eh Agogo am na ngembu ñoom ñaar ku ne am na ngembu ndeysaan ñoom ñaar ku am nga ngembu jàppante nañu Agogo nga koy forcé tampon ndaw a bañ waaw Agogo ak tampon eh tampon takk na ko tampon takk na ko da koy tegal 16 hee séddoo nañ jël lu xew séddoo nañu jël lu xew ñu déglu arbitre lu ñuy wax ñu déglu lu arbitre yi di wax ñu déglu lu arbitre yi di wax ragal naa ñu bëriwaat ñoom ñaar ragal naa dañuy bëriwaat waaw dañoo seddoo jël ba de dañoo séddoo jël ba hee dañuy bëriwaat waaw dañuy bëriwaat de. Eh, victoire de Tampondaw sur Agogo. Victoire de Tampondaw sur Agogo. waaw loolu la arbitre wax Hotel bu Saalum mbooloo ak Bébé Balla mais hotel dafa melni adversaire am ñewul. waaw waaw arbitre yang koy xol mom mo ñew mom hotel mo présenté wu arbitre yang koy xol waaw waaw ndeysaan hôtel Dior bu borom ndangaan Birkilaan waaw borom Kaolack yi noonu moom hôtel arbitre yaa ngi sifflé sifflé nañu benn yoon waaw deuxième sifflet waaw waaw <laughs> waxtaan léegi noonu jël quand même troisième sifflet pour waouh! Waouh waaw waaw eh. victoire de Hôtel Dior sur Bébé Bala. Bébé Bala ñëwul Hôtel Dior am victoire jël na victoire am ci Bébé Bala moom hôtel adversaire ba ñëwul waaye moom la jox victoire moom hôtel Thank you.

Omar arbitre bi na combat bi diggante Alliance Baldé ak Sangomar Alliance Baldé Sangomar Alliance Baldé mo ñu won ginaaw he he round observation amu ca xeex Sangomar alliance ñoo ngay xeex ñoo ngay xeex mbaa alliance eh, eh, vite fait bien fait doole doxul jam doole doxul jam wa lu xew lu xew ah lu xew lu xew lu xew ñu déglu eh, waaw waaw Sangomar daan na ko Sangomar daan alliance Baldé combat ba gaaw na da koo bu doole ndeysaan vite fait bien fait है nañu jàppante Lion jappuna Aljuma 2 jappuna na Aljuma Lion ja Aljuma Lion ja eh eh jeex na combat ba jeex de Lion Dia aljuma doolu xew waaw waaw Lion Dia daan na aljuma de Lion Dia daan na aljuma de waaw Thank you. mbër ñoo ngi lay ziare. ca góore la borom passoir. waaye bàyyi ko yàlla yaa ngi taxawu dëkk yaa ngi loo xam ne ko waaye. am na saan góore la ñu noonu. Mama Thiam waaw Baye Fall yaa ngi noonu. Liss si kii. sama waa yaa ngi noonu. parce que mbooloo mu toll nii nee yaa ngi noonu ndeysaan mooy grand Pape Saliou. borom ak yi ñu tuddee. mbokk ndey koy jur waaw waaw ñoom Mathias su ko tuddee Thierry mooy jugaan ñëpp xale yëpp ñoom Mathias ñoom ñoom Fatou ñoom ñëpp yi ñëw la kooku Zambala ko xam naa ne dina jàpp waaye jàmm ji rek ndeysaan borom mbaaw ngi noonu boo ñaa ngi noonu sifflet ba jib na góor la ngi noonu Olha, te lewaatoo ba dara amagul cokaas amagul congu amagul ñoo ngay lewaatoo ca kaw ñaari pied droit hee Boy Saloum déclenché na góoreel reculé wala repli la Boy Saloum góor ndeysaan Saloum dox na ci koom Saloum a ngay dox ci koom Gorel Boy Saloum ragal naa ñu juwalo kenn day déclenché ku kenn daw jël ko ci suuf loolooy lamb ji de li ma gis ni bu dakul foofu lañ jëm kenn day déclenché ku kenn wàcc suuf remplacé ko booy Saloum Gorel sëkkatal na ko Gorel arrière cey lamb ñu ngoy dox ndànk di ñëw avertissement pour Gorel waaw waaw jël na benn avertissement Boy Saloum Ocass Gorel 3 minutes de combat Boy Saloum ma ngay dem pas à pas hee Gorel Boy taw na sàcc ko Boy Saloum gis il est il est vigilant waaw combat bi dafa laaj vigilance rapidité vivacité souplesse et technique trois minutes de combat Boy Saloum Gorel Boy Saloum Okas Gorel hé Gorel jël na tank Boy Saloum Gorel jël na tànk Boy Saloum Gorel jël na tànk ba hee Boy Saloum Boy Saloum war na ko ndombo Boy Saloum war na na ko ndombo jeex na Boy na Gorel Boy Saloum daan na Gorel na ko.